léegi nag ñu jóge ñëw ci point bu njëkk muy sàcc ay imaam. waaw sàcc ay nag bu ñu ko waxee mooy moo du Diouf mi am soxna. ñaari soxna wala sax Baye Assane moom laa gën a yeb. Euh, ku ne hmm. am ñaari fanam wala ñetti fanam wala lu ñu waxtaanee ba tënk ko. Hmm. waaye Assane bu ko neexee yenn saa mu daal di jaar ca ñaareel ba wala ca aaw ba moomewul ay. Hmm. sol fa mbubb naan fa café naan fa boisson wala sax nelaw fa tuuti. imaam lan mooy sàcc ay ñu doog a ñëw ci àtte yooyu. waaw ñooñu la yeneen salaa salaam di wax na yow mal xiyaam bu ñuy dekki dañuy pant dañuy jéng seen genn wàll gi day paralysé waaw mooy ñi nga xam ne dañoo yor ñaari soxna di toxal ak ay fii di yóbbu fële moo xam dañ koo sàcc wala dañ koo forcé parce que am na ñoo xam ne tamit waaw am ñoo xam ne forcé waaw am ñoo xam ne ñoom seen soxna yi leer na leen ne kii day jàdd ci kee même bu ayewul mais lew na ko imam moo lew na ko de ah, waaw mais daa am période yu mu lay lew jabar du période yëpp la lay lew nga ànd ak moom de. am na hmm. période boo xam ne boo fa àndeek moom def nga lu xaraam. Hmm. waaw te mooy nga fekk ayug jàmbur. Hmm. nga toxalee ko ca dem yóbbul ko kële. loolu du loo moom àqu jàmbur la. ay nag mooy li nga xam ne guddi la ak bëccëg. noonu la ko sharia di tënkee. bépp jigéen bu aye am na guddi ak bëccëg. léegi nag waaw yow bu fekkee dix heures nga fay dem. dix heures ba suba moo ko moom. su dee midi nga fay dem midi ba suba moo ko moom. Mhm. mais yow boo ayee ci kii teel a ñëw huit heures. nekk fa ba bët set. Mhm. toogaat fa ba dix heures doog a génn. Mhm. soo ayee fële xaar ba quinze heures nga doog dem. wala sax dix sept heures. balaa fajar nga wàññeeku ñibbi. lenn mën naa nekk. su ngeen ko waxtaanee ba d'accord ci. ou bien yow say jot ak say yitte fa ngay dem di ko fa fekki moo sori. ba jumtukaay yooyu moo dajewul mais bu dee ñoom ñaar a ngi ci benn barab. bokk fu ñu ne ci ndagaaw hmm. fu ci ne nga mën fa dem def fa temps mais sag jéng moo tax ngay wàññi heure yi kii di jox kële hmm. loolu la charia di tere loolu nag bu ñuy wax jéng ci sëy hmm. loolu la loolu mooy jéng ñaari jabar mën nga leen am Shuayb nga may kii te mayoo du tudd jéng ah. dafa dépendre ah loolu yemale ah, waaw nga may kii te mayoo kii waaw dafa dépendre lu tax nga may leen waaw tey mën nga ñëw ci kii nga aye fa yëkkati sa benn deux mille francs jox ko. Hmm. pour dépense. Hmm. nga gis ko mu dem dugg ginaaram. Hmm. jënd boisson jëndi lu nekk teral la teral say gan. boo amee xel war nga xam ne sa deux mille francs yii. tollul indiwu fi ginaar moom mooy jël alalam di ci def. yow nag boo amee xel da ngay fexe yow it. léeg-léeg nga yëkkati dara defal ko ndax. coono ba muy daj ci yow ak la muy financé waru ko da koo def rek ma roq ni ko nga gis koo xam ne 2000 francs yi nga koy jox mën na am sax boo ko ko joxee 1000 francs yi sax du ko ci def. Hmm. ou bu ca yemee mu yem ca kepp d'accord loolu nag loolooy tax léegi-léeg nga mën a may kii dara te doo may kii ou kii moo ëpp njaboot kii. Hmm. kii boo jëndee paquetu saabu yóbbu fa. ba weer bi dee paquetu saabu bi mën na ko doy. Hmm. kii benn paquetu saabu bi balaa de fukki fan ak juróom mu jeex. ndax daa yorum njaboot mhm. nga jëndal kii ñaari paquetu saabu jox ko jëndal kii benn paquetu saabu ndax kii moom kenn képp a nekk ak benn doomam kii ma ngaa fukki doom loolu yamale la waaw loolu yamale la waaw loolu mooy ku nekk ni nga toll moom lañ la defalee loolu mooy ak maandu léegi ku mel ni Baye Assane bu amee ñaari soxna mhm. léegi aaya na ca aaw ba waaye ñaareel baa ngay liggéey ca entreprise sàngam mhm. mu wàcc ñaareel boo ko ni ko doo ma déposé mu jaar ca entreprise ba jël ko dem déposé ko këram amul droit amul droit dem toog naan fa café dem déedéet bu mu jàdd ah bu mu jàdd de amul droit dem jëli ko yóbbu oto bi daal bu ko yóbboo ba mu taxaw ci bunt bi ne tijji bunt bi bàyyi ko mu dugg bu ne ko kaay Ousmane euh, Oustaz soxnaam la soxnaam la bi muy ànd ak moom ko ndaw sële ca kër ga hmm. moom moom moom bi ngay ànd ak moom ci ay soo bu jigéen bu ko neexee jaay ayam jaay xaalis jaay jaay jëkkëram ayam mooy soxna si dafa ayee waxuma jëkkër ji ne ci ko neex de soxna si am ngànt hmm. xam nga boo amee ngànt mënoo ànd ak sa borom kër waaw te borom kër gi bëgg naa ànd ak moom mu ne ko damaa ne ci ngànt mhm. su boobaa borom kër gi da koy ñaan ne ko ndax mën nga ma may kon ma fanaani fële ñaan lay doon ñaan da koy ñaan de <laughs> ne ko ndax mën naa dem fanaani fële su ko neexee mu ne ko bismillah mën nga dem fanaani su ko neexee mu ne ko déedéet doo fanaani te su ko waxul du dem bu ko waxul du dem mais su boobaa góor gi ne ko wax ne ko hmm. ñaata nga bëgg ma fay la ko pour dem fanaani mun ne ko soo ma joxee junni mën ngaa dem su ko joxee junni léegi ay gi bu ko neexee yóbbul ko kële ndax jaay na ko ayam. Ah. mais ay gi moom ndaw si moo ko moom bu ko neexee maye ko bu ko neexee jaay ko mais góor gi sañu ko tappale sañu koo forcer. ah kon doo nekk naan man maay sa kilifa. lu ma neex laay def voilà fu ma neex laay jaar suma liggéey foofu sama kër la dépense ba fa nekk maa koy joxe même boo koy joxe. Hmm. jour bi nga fa ayee képp nga fa am sañ-sañ. boo fa ayewul amoo fa sañ-sañ waroo fa dem lu dul dara xew fa. nga war faa dem nga lijjanti loolu te delluwaat mais dem fa pour sa bànneexu bakkan ñëw jaaxaan ñu taalal la ataaya hmm. wala di la jox ay boisson ak di la defaral reer naan la reeral balaa ngay dem hmm. c'est-à-dire ngi lay bëgg a won ne boo demee fële duñ la toppatoo na xaar ba ayam ñëw mu toppatoo la sàcc ay moom lu xaraam la hmm. ndeysaan alaaji fan dafa xaraam ah, dafa xaraam de dafa xaraam de ñi koy def nee naa la yowmal xiyam bu ñuy dekk seen genn wàll gi yëpp day doom ya waaw pourtant nag dama bëggoon. Euh, ma pose ko foofu ba bii di ñëw ñi ñëw ci attey mhm. boo sàccee ay am fa doom. waaw ah, d' accord. ñu def noonu wala waaw d' accord incha allah. ah, ah? si incha allah nañ bàyyi ba bii di ñëw kon kon bii di ñëw yéen mbokkee xarit yi comme imaam wax na leen. Mhm. façon wu sàcc ay ak ni mu mhm. xaraamee. bii di ñëw nag dinaa ko laaj ci léegi ki sàcc ay. ñëw dem fa naan fa kafe naan fa kii daal di fay seeq ak soxna sa doom juddu. doom jooju lan mooy atteem ci sariya incha allah.